teew fii seen kanam pour lancer le projet bi nga xam projet de création d'emplois à travers des initiatives communautaires des femmes entrepreneurs bi nga xam projet bu am solo ci suñu département ndax ñun dañu dénk wàllu entrepreneuriat te xam nañu jigéen nu muy góorgóorloo ci walu entrepreneuriat ak nous muy ci walu entrepreneuriat projet bi nak projet la boo xam ne un milliard trois cent soixante-huit millions là ñu ñëw pour jàppale jigéen ñi seen yëngatu ci seen activité communautaire yi nga xamné ñom dañ koy def très souvent de manière bénévole waye tay nak dañuy ñëw lolu ñu leen def ci bénévolat ñu structurer ko mu nekk ay création emploi yu effective mais aussi ñu mëna amalé à partir de ce projet ay lignes de financement yu leen di permettre seen activité entrepreneuriale yi nga xamné mom lañuy développer ñu mun ko gëna a yaatal gën nga mën a yokku pour mën a gis seen bopp aussi li nga xam ne moom la ñuy def secteurs yi nga xam ne moom la ñu ciblé bëri nañu éducation ak enseignement bokk na ci environnement ak sport bokk na ci mais aussi gestion des infrastructures publiques aussi ak santé loolu aussi bokk na ci mais ñoom ñooy xool yan secteur ci domaine yooyu la ñuy identifier proposer ñu si ay activités yoo xam ne ñun moom lañ leen di accompagner mu nekk projet bu am solo boo xam ne président de la république moo ñu jox moyens yi nga xam ne moom lañ koy defee pour que yéen jigéen ñi tamit ngeen mun ci gis seen bopp ndax ministère de la jeunesse la wax waaye aussi ministère de l' entrepreneuriat et de l' emploi la ñu wax. donc nga ñëw nag di jéem a lëkkale ñaari maanaam entrepreneur yi nga xam ne ñu ngi créer emploi nga gën leen a dooleel gën leen a yokku pour ñoom tamit ñu gën a mën a am capacité créer emploi yaakaar naa loolu la ñu dénk ministère de la jeunesse de l' entrepreneuriat à travers. la direction de l'emploi bi nga xamné mom mo yor convention état employeur ndax yeen ñi ñu ci bëri ci entrepreneur yi da ngay di créer emploi donc état daf leen wara a pour ngeen gëna mëna créer emploi ci secteur yi nga xamné mom ngeen di def ñun nak Sénégal ñun ñoko bok programme bi amul ku bok opposition amul ku bok parti au pouvoir ñëpp lañ ko jagleel la nga nekk sénégalais rek mëna justifier que ne yaa ngi ci activité mëna justifier ne entrepreneur nga mëna justifier aussi que ne kuréel bi nga nekk amna capacité organiser ay activités communautaires autour du projet su ko defee so déposé ñu xol la chamber sey keuyit mën la sélectionner lolu lañu def maintenant initiative bi dafa ñëw doli nak yeneen initiative yo xam amon nañ ko muy barki dembu gis nañu lancer nañu un grand projet bo xam presque 1000 emplois la créer. te bobu inshallah sélectionner nañ ñi nga xam ñom ñoo ci wara bénéficier wu té momi tamit après Korité dinañ def activité de lancement bu mag pour gëna mëna fessel programme xëyu ndaw yi parce que lii ci programme xëyu ndaw yi la bokk te programme xëyu ndaw yi ñëpp gis nañu effort yi nga xam ne président Macky Sall def na ko ci te résultat yi aussi yaakaar naa président annoncé na ko le 3 avril résultat yu am solo jot nañ ko fi def te si bés yi di avec le premier ministre dañ def ay grandes cérémonies dañ def ay grandes conférences mais aussi euh, def ay ndaje yu mag yu am solo euh, pour gën a mën expliquer les impacts du programme xëyu ndaw yi. bénéficier directement ci projet

Eh, société bi ni démé la ragal jugement yooyu yëpp dal mën na tax nit ñi dañuy ragal sauter premier pas bi pour mëna commencer luy entreprendre mais yaakar nañ ne ak euh, jàpp ministre bi nim ñi jappalé ni dina tax ñu bëri mëna ñëmé am lu leen jappalé mëna commencer entreprendre inshallah D'accord, merci.